buxyatul mustafid su ko defee ñu ngi ci muqaddima bi ba léegi tey ñu ngi jàng mayluhu jeng gi mu jeng moom taarifkat bi lil ixtisaari jëm ci gàttal wal iktifaay ak doyloo bi taqribil qaari i ci jegeelal aji jàng ji mina nas mi ci way wi xam nga dafa am way wi muy sarxa di ko leeral moo tax bëggut gudd ba génn waxu taalifkat bi maanaam ba génn li borom muniyatu murid andi li bëgg rek mooy fexe nga gën a comprendre béyti bi borom muniyatu murid andi lan lay wax moo tax du guddal leeralam bi ba ëpp nga alxadiisu sujunun waxtaan ay cël la mën na di wax ci benn mbir ba si këram génn ci duggaat ci beneen génn ci duggaat ci beneen su boobaa dafa mel ni kuy taalif téere boppam waaye jubluhu di leeral waxi jàmbur loolu na lay bañ moo tax mu gàttal lim jublu daal mooy nga jege way bu baax gën koo comprendre istahara siwee na al muallifu taalifkat bi radi yàlla na gërëm ci moom bi nu ci fésam fés mooy feeñ ak raw gim raw ñëpp wa quwati xaafisatihi ak kàtt nag mokkalam دفتيون فس أجمنا مكان وأول ما يلفتو لم يك جرسو الناظرة أجي قال ورب الناظر أجي قال في كتابي كتيرم بوحية المستفيد هو ممايل هو مجنغ تعرف كتب أتام مجنغ وقادي مت إلى التحقيق جمت أندي لهور والبحث أكستو وتدقيق أكسوال dégg-dégg yi yow mii liir téere bi li ngay njëkk a seetlu mooy ne taalifkat bi daal du andi lu ko leeru waaye ku mën a gëstu la te it sew-sew yu bari andi na ko ci téere bi maanaam yi nga xam ne bu ko andiwu nit ñi duñ ko seetlu yooyu mooy sew-sew yi yooyu andi na ko nii la meloon du andi lu wóorut wala hada moo tax summi yeen tuddee ko bi buxaari tariqati ci buxaari tariqa bi نيمان بخاري ما عندي أي سو سو حديث من قصت دي عندي لهور نون لما المؤمن تاريخ بي ما تخ مؤمن تدهون بخاري طريقتي بيد أنه عندك نمام بنات بحنا كتابه تيرم المذكور بن تدو على سبيل التلخيصي شيونو قتل تيرم دال لفكو قتل مهم قدركم falawu ñeel na ko alqudratu kattan alhaila gu tiidlu maanaam kattan gu kawe loolu la dem ci gu tiidlu boo xam ne kenn mënu ko roy daal na kattan ala tabasuñ ci yaatal fi mawaadi ci ay barab kasiratin yu bëri tataraqa nga xam ne dox na laxaa jëm ci moom benn te yaate haadal ci diggante lem-lemi bi am na kattan pour yaatal ci thèmes yu bari yoo xam ne ñëw na ci téere bi mooy thèmes yi nga xam ne ñëw na ci téere bi mu waroon cee mën a yaatal waaye yaatalut ci maanaam bu bëggoona a yaatal am na thèmes yu bari yoo xam ne mënoon na cee wax lu gudd gudd waaye deful loolu moo tax ma laakin noo waaye moom naxaa jiblu na fiyaa ci téere bi jaanibal ixtisaar yi wala gàttal waxtaara mu tànn al iqtidaa ba tënk tënk mooy bañ a guddal badaral istirsaali wute guddal fil kalaami ci wax wal isna bi ak yaatal ñaareel guddal lay firi rek am na thème yu bëri ci téere bi yoo xam ne mënoon na cee yaatal lool waaye daf koo tënk gàttal ko mu joxe ci exemple ne wanaa xusu nañ jël masalan exemple masalan misaal kanamu daj mu mel ni exemple bu lay wan ni muy gàttale nañ jël masalan ci misaal kanamu sëj comme exemple masalatu ixtiraami awliyaa illaahi masala respecté wàllu yàlla yi wa ak jox leen grade bu mag wa taaddubi ak yaru maahum ànd ak ñoom ba muy traité masala mi mooy niñ war a respecté wàllu yàlla yi niñ leen war a màggalee niñ war a yaroo ci seen ab yar ba muy indi thème boobu faqat xaala wax na fi hada shaani ci bila mbir بعد ما أحاته قناو لم لا لم لنا خم نبيك نكو بأقوالي شاي وخم وتحقيقاته أي دقلم أني ري أجي لير مثلا مون بمشي وخ قناو مندي أي وخم أكبر يو لير نني وخم نني وخي هور لو يجي موم دفني هذا لي ولو تتبعنا بنتبون ما نقل لن تخلي عن المشايق جيكو سي سرينشي rajo yàlla na gërëm laa yalaanum ci ñoom fi asal baabi ci biir bunt wastaw ab naa ñu matal zikra ma tasafa tudd la nga xam ne meloon a bii ci moom sayduna suñu sang te bu waxee suñu sang mooy Cheikh Tidiane rajo yàlla na gërëm laa yalaanu ci moom min sa niil aada bi ci teggin yu kawe bu fekkoon ne li sëriñ ci wax ci bunt bii mooy bunt respecté wala yàlla yi yëpp nar nañ ko andi. waaye di li Cheikh Tidiane meloon ci jikko yu kawe ak i teggin yëpp nar nañ ko andi suñ naroon def loolu la xaraj naa danañ génn ilaa xaddi itnaa bi jëm ci doyab guddal guddal naroon andi loolu lépp ko doon ñu guddal nga dee gis ne am na lu bëri lu mënoon andi waaye andiw ko maa an al ànd na jubluwaay bi innama huwa moom mooy wàcce rek maanaam laal bi shay'in ci dara mimma ci li nga xam ne asa amaana an yakuna mu nekk تنبيها لياتي وتذكرا لفاتل لناظرين يلاجي قول في هذا الكتاب يجي بلتيري من قوكو خدمين من الهال ينجيب لنيون ما يجيخ لو خمني عندي لو خمني دينا لأيه فاتل لا بغي ما نكمبران تيري بي بس كتيري بي ويلا تنفى تنك بباخ باخ ñu andil loo xam ne dina tax nga mën koo gën a comprendre loolu moo tax nag duñ la andil waxi góor yàlla yépp ci masal mi wa ihanatan ak dimbale lahu ñeel aji jàng alaama ci li nga xam ne moom bi sadad yi moom la jublu min fahmi masaili a nas mi mooy jublu masalaay bi la way wa tabsiratan ak wan ko masala yi mu ne liñ jublu mooy dimbale la wan la masalaay way wi maanaam mu yettu murid lam andi ci ay masala tënk ko yooyu la bëgg a wan dimbale la ba nga mën koo dégg kon moom sarxa téere boobu moo ko tax a jug waaye du taarif téere boppam wallaahu yàlla taala kaw ne almustaanu moom la ñuy dimbali ko waane yi ci moom la nekk subhaanahu tudd na ma sallam attukulaanu wakiilu wakiilu mooy moom la ñuy bàyyee mbir yëpp kon gis nañ foofu ne taalifkat bi taalifutoon pour taalif téere waaye lim jublu rek mooy leer lan la mu netul murid moo tax dafa gàttal mashaahidu ay xew-xew min asrin muallif yi ci jamono taalifkat bi jamonoom nu meloon ban jamono la doon dund mu ne ansara jamono wante naag al mu allifu taalifkat bi radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm arbaatan ñeent min kibaari salaatini dawla ci mag yi buur yi état bi al alawi bi ka jug alawi al sharifa gu tedd gi buur yi nga xam ne ni dañoo askanoon ci imam ali ñu ñuy alawi jamono wante na seen ñeenti buur ibtidaan commencé bi sultaan ci buur ba al mawla Souleymane jamono wante nag buur boobu di Souleymane bis ngir kaana nekk na la daa wafaati si jamono faatu buur boobu tiflan di xale ci sinni kaasi an ci atam juróom-ñeent min umri ci dundam ba mawlaaya Souleymane di génn àddina boobu taarifkat bi mu ngi am juróom-ñeenti at ci dundam kon jamono wante moom wa mururan romb na bi salaatini ci buur yi almawla buur ba mooy abdurahman bun hisham jamono wante nag abdurahman bun hisham wa ibni ak doomam mawla muhammad bun abdurahman jamono wante nag mawla muhammad bun abdurahman wa xitaaman ma nga mottalee nag bi sultaani ci buur ba almawla xasan awal buur bu ñuy wax xasanul awal alladi bi nga xam ne kaana nekk na taj moo di ko dajale bii ak moom mawaddatun cofeel wa mahabbatun ak mbëggeel qawiyatun bu dëgër kon nga dégg si ne Mawlaaya Xasan Xasanul awal mooy buur bi nga xam ne mën ngaa wax ne jaxasoo woon ak moom ndax ñoom ñaar yàlla defoon na cofeel ak mbëggeel gu dëgër seen diggante yeneen buur yee nag jamono ante na ak ñoom kon jamono ante na ak al Mawla Suleymaan ak Mawla Abdurahman bun Hisham ak doomam ja Mawla Muhammad bun Abdurahman mu nga mujjeeg nag mawlaaya xasanul awal ñeenti buur yi jamono na ak ñoom waaye jaxasa waa naag buur bu mujj ba kon wàllu yu mu jaxasoog buur waaye dafay defar buur ba mais buur ba du ko yàq waara fa xam le na almahribu mahrib mooy marok ibaana asri haulaay salaatiina si jamono ci waxtu jamono yële buur baana mooy ci waxtu jamono asru mooy jamono yële buur wa arafa xam na wa arafa xam na ngay firi al maghribu maghrib ibaana asri haulaay salaatina ci waxtu jamono yële buur maanaam xam na mooy dund na rek lañ si namm waqaaye ay xew-xew wa ahdaasan ak ay mbir kasiiratan yu bari ñeenti buur yi seen jamono Maroc dund na ay jafe-jafe yu bëri bari ak ay xewal yu bëri minaa am na ci jamono yooyu maa li nga xam ne foofu moom mu ne boobu minaa am na ci xew-xew yooyu maa li nga xam ne foofu moom ijaabu ijaabiyun lu baax la wa minaa am na ci maa li nga xam ne foofu moom salbiyun lu bon la xew-xew yooyu am na yu ci neex ak yu ci naqari yi ci neex mooy ijaabi yi ci naqari mooy salbi yi ci naqari nag lay misaal mu ne kaxtilaalil quwaatil faransiya comme not gu doole France not li jazair ñeel al jazira fexe ba not leen rek comme ni français yi def africains yi rek coloniser leen loolu dund nañ ko te xew-xew boobu wala boo xew-xew yi diggante France ak Jazira Al Jazira dem na ba Maroc dugg ci comme ni ñu koy waxee dégg wakaala nekk na hmm? al muallifu taarifkat bi waaw mooy Algérie mooy Algérie dégg nga ci jamono yi nga xam ne France ñu ngi ko not foofu jamono yooyu neexul woon ci Maghrib mooy waa Maroc wa kaana nekkoon al muallifu taalifkat bi xëy na xaas jamono boobu chaban di ndaw yaa fi am bu am kattan tuuti fi saabiata asra nekk ci fukk at ak juróom-ñaar min omri ngi am 17 ans kon mu ngi commencé dëgër chaban yaa fi am mooy ndaw lu dëgër daal am jamono boobu France mu ngi not Aljazeera mooy Algérie وكان ان يكون اذا تحدث ابو وقتان عن هذا البلد شي بلدك مانام بو وقتان بنيو تي الجزيره من خلال كتاباتي شي بيت اي بندم غالبا لو اوب ما يسال داي نيان الله يلا ان يفرج مو يرل مانام مو قتل في سمو عن المسلمين سجلني بالاستقلال شي ميلن انديبندنس دي بران تود الجزيره تي اي بندم دا فاي نيان يلا يلا ميلن انديبندنس باسكو بوبو مغي نيك نداو تام 17 gis loolu gis ñu nëpp arab yi di leen coloniser loolu du ko neex moo tax lu bëri dafa ñaan yàlla yàlla may leen indépendance hmm? gis nga lii dafay tekk bëgg sa réew wëllu yu dafay bëgg réewam ñii ay wëllu lañu woon waaye gis nga buñ notee arab yi sax mu leen naqari ñuy ñaan yàlla yàlla génne leen ci noteel googu dégg waan wa mawdu ci tam bi yaqul wax fi kitaab bi ci téeram bu xeetul mustafid لدى حديثي بمي وقتاني عن مدينة تلمسان سيدك بوب تلمسان نخمنا ندكب منغاوان الشخص يعني تلمسان فسنا سي اسوارم من حضرة من حضرة تلمسان هي تيبيب تلمسان دينغا أعدا يالله كو ديالو الله يالله دار الإسلام دار الإسلام كر الإسلام دينغ مانام بوي بوي تود تلمسان da ngay dégg mu ne ci péeb Tilimsaan maanaam bu tuddee ne péeb Tilimsaan mooy dëkk boobu rek daf naa yàlla na ko yàlla delloo muy kër lislaam di war ne noteel gi ñu leen not yàlla na dañ dégg nga ñoom jullit ñi léegi daal di ko moomaat di ko doxal comme ni ñu ko war a doxalee kon jamono boobu nga xam ne France mu ngi not Algérie jamono boobu waa Maghreb amuñu lu leen neex loolu benn la moom dund na jamono jooju daan na ñaan yàlla yàlla xettali waa Aljazeera wa min ahdaasi haada al asri bokk na ci xew-xew bi la jamono mawqiatu isli xarab isli isli benn xur la woon dégg nga foofu ca maghrib sanata mille deux cent soixante ci gàddaay gi ba gàddaay ba am junni at ñaar téeméer ak juróom benn fukk xare amoon na foofu ci xur wu ñuy wax isli benn quwatee nii ci diggante ñaari état yi المغربيه موي ايتا مغرب والفرنسيه يعني ايتا فرنسا لو ورالون خيخ دانك كل نيز كل نيزون الجزيره مو ورالون موي الجزيره بسبب الخلاف بسبب ووتي المتعلق اجو بالحدود المغربيه تي فرونتيرو فرونتير بي كيو المغرب الجزائريه الجزيره ديغنت فرونتيرو مغرب الجزيره فلا ووتي امون ووتي وانا Mawlaaya mooy buur bu boobu noonu Mawla dégg nga moo yaakaar naa defe naa Mouhamad bun Abdurahman la Mawla Mouhamad bun Abdurahman buur boobu moo dimbaloon waa Aljazeera ci kaw France dégg nga xëy na te leen frontière yi fexe ba France yi duñ amati doole su ko defee France daal di mer nag ñoom it daal di songu waa Maroc waaw. kon wute gogo amone sen digënt sen frontière yi bu Maghrib bi dem dimbale wa al Aljazira lolu waral na problème am ba wa France ñoom it dal ci kaw Maroc ca xur woowu ñuy wax isli fa la xeex bi amee ci atam 1260 waxat azharat feeñal na hasil mawkaatu bi la xeex doom fan lot jëliyen bu feeñ fi jaanibi quwaatin maxzan ci wàllu doole yi إتا المغرب بيك يوم مغرب مغرب مغرب دي أم بان من أفريق نتر المغزن مغزن موي نيغا خامن ني نيو نيو دخل نغورغي دينغ لول موي سين مغزن نيغا خامن دانك لي ادي شوال إتا بي نغورغي ييب موكاي دخل لغي نك لول دا فا خونا ام سوخه مانام دولي مغرب دا فا كوماسي واتي سي سبب قري بوب نيغا خامن ني فرنسا خري نانكو اك نيوم با سين نغورغي كوماسي نيو دولي wakaana nekkoon na xere boobu bidaayatan di tàmbali li taraaju haybatil maghribi ci dellu gannaaw ak euh, dégg nga mm, raglu Marok alati bi nga xam ne kaana nekkoon istawjabaha di ko am qabla salaasati quruni njëkk ñetti maas min hada taarix ci bile taarix maanaam taarix bi mooy mille deux ci xare boobu avant xare boobu Marok ku amoon hayba la maanaam kuñ wegoon la kuñ reg kuñ ragaloon la waaye gannaaw xare bii nag ci la wegeel gi ak ragal gi ñu ko ragaloon commencé dellu ginnaaw ndax gis nañ ne seen doole seen état muy commencé wàcc di commencé dellu gannaaw loolu nag ci jamono taalifkat bi la waaye jamono boobu nag nottu guñ leen bépp ak not nag mais ñu ngi commencé dellu gannaaw kon xare boobu di mawqiw isli xewoon ci xuuru isli diggante France ak Maghrib ci sababu Maghrib dimbale giñ dimbale aljazira xew na ci jamono taalifkat bi laal na it waa Maroc bu baax a baax ba nga xam ne seeni eh, nguur mu ngi commencé di gën a néew doole ragal gi leen ragaloon weg gi ñu leen wegoon ci diggante jërëm ñetti maas maas mooy téeméeri at mu ngi commencé wàcc wala waji taxdiidi rawatina nag wala wala waji taxdiidi ci limité fi maarikati waadil maxaasin ci xuru waadil maxasin waadil maxaasin moom it benn xur la ab barab la boo xam ne fa la bi xamee woon dégg foofu xare boobu defe naa mu ngi xewoon ci diggante Maroc ak waa Portugal defe naa ñooñu loolu bu ko defee xare boobu eh, moom it laal na waa Maghrib kon ñaari xare yëpp xew na fa wala yafuutu naa du ñuy faat ak tan biihu yeete annal mu allifa ne taalifkat bi radiallahu kaana nekkoon na xinaas jamono yooyu fil haadi wa salaasuna ci fanweer ak benn minam day ci dundam wala mu yekku nekkul woon mara di romb alal te xaqi si jàpp gi mu jàpp bi tariqati tijaane si tariqa tijaan si waa arbaa sanawaat lu mooy ñeentaat jàpp na tariqa tijaan ñeentaat la xare yi xew laaxiru ëpp ñeentaat kon moom ba muy jël tariqa bi yaakaar naa mu nekk ci ay vingt sept ans hmm? te gis nga li ko ci yàlla may moo tax affaire yi góor-góor rek la نعم. وقد قال وانا في هذا الموضوع تم قصيدة بين قصيدة ما يقرأ يو ومثلها كما اسمع قصيدة ما إن الهموم الذي قلبي الله زعجا كأنني بصباح الليل هل إن برجا إن الهموم أنك جاكري الذي يقمنا أسكن لك واجه الذي فيك التي لا allati nga am est-ce que du allati parce que moom de yaakaar naa dañ koy jigéenal de loolu de laa gën a gis parce que laxaa tamit gis nga da koo jigéenal daal mu dellu si moom xëy na allati la maanaam téere bi moo bind loolu. inna na xumuma naka njàqare yi allati allati yi nga xam ne xal bi sama xol inzaaja dégg nga dégg nga inzaaja jaxasoo na laxaa ngir moom sama njàqare yi nga xam ne tax na sama xol jaxasoo. ka ànd ni dafa mel ni man bi sabaaxi layliha maa ngi gis subaa guddeem ga in bala jaamu feeñ maanaam njàqare yi dafa mel ni léegi mu dañ dafa mel ni maa ngi jënoon suba gi guddi guddi njàqare njàqare gu mel ni guddi mu ngi war a dañ euh, sécurité ak jàmm gu mel ni bëccëg war a ñëw ndeysaan kon jamono yooyu mu ngi bégal ne xëy na problème yi yàlla dana ko jeexal كون ci jamono xew xew yi amon na ay guerre fofu ca maghrib ومن الاحداث بوكنا شي خيو خيو الاخرى يعني التي يعني خمنا وقعت بنا في عصر المؤلف في جمع تعرف كتبي احتلال اسبان كل نزي اسبان لمدينة تتوان يل دك بني وقت تتوان عام 1276 في غداي وان شي حاوم اكسين روتشيكم دك وبان سنتين لغنا ونار ادرك lañ ko lii si dëkk boobu daal dafa génn am 1278 ci lañ gàdd ci lañ fa génn baax mu aadati sulhin gannaaw bu ñu kóllërwanteeg juboo maanaam Maghrib ànd ak Maroc dégg nga ba jë ba juboo amee ci lañ fa génn kon moom fekkee na xew-xew boobu it. wa naa nekkoon na al muallifu taalibkat bi xii na aat ci jamono boobu xarit sawtana dëkk na madinata ribaat jamono boobu mu ngi dëkk ribaat. wakaana nekkoon na jamono ba Espagne di colonisé dëkk boobu fi saabiati wal arbaina si ñeent fukk ak juróom-ñaar mun am si dundam ina si jamono boobu boobu mu ngi am 47 ans ila xeeri zalik jëm ci dul loolu min ahdaasin ci ay xew-xew min ahdaasin ci ay xew-xew oxra yeneen kasirat ñu bëri laa xasra di rek takk laa di ko ñaan am na xew-xew yu bëri yu xew ci dundam moo tax nit yàlla yàgg na ñoo fekkee ay jafe-jafe ak ay nattu ak ay nattu ak ay dund bu métti nga àdduna it yàgg naa yëngu ci jamono ñu baax ñiit dégg nga bu ma haadi dét lii illaa lamaxatun mooy gendeeku xaatifatun bu gaaw anil xaalati siyaasiya ci situation politique wala amniya ak sécurité fi asril mu allif ci jamono taalif kat bi li tax ma andi la lii dama see jaar-jaar bu gaaw rek parce que guerre yi faram fàccewut ko waxul li ko waral ak nangam waaye bëgg wax rek ne la dégg nga ci jamono taalif kat bi ni la situation politique bi meloon sécurité bi ni la meloon si yamonom waye mum ahdaatun ay xew la wa waqaa'i'u ak ay mbir mutataabi'atun yu toplanté lam tada bàyyiwut lil maxribi ñeel Maroc sabilan yoon li istiqrar pour ñu am sax manam ñu nekk ci jàmm wal hudu ak dal min jaatin ci wal wala ila ruqi bàyyiwul len jëm ci avancer wa taqaddum ak yek war raxaay ak nekk ci jàmm min jaatin saaniya ci wàll ak ñaareel xew-xew yi taxoon na Maroc amuñu woon dal amuñu woon jàmm waaye tax na it mënuñoo avancé gën a dem ci kanam dëkk bi gën a naat ndax ay guerre ak yooyu moom fu mu am rek dëkk bi moom bu leelul gannaaw du avancé kon xew-xew yi ci jamonoom tax na Maroc mu avancé wu ni war a avancé wa ma daalika ànd ak loolu fa inna asral inxitaati naka jamono wàcc lam yashadu teewewut ko almahribu lam yashadu fekkewu ko almahribu marok illa baada mu muallifi lu mooy gannaaw faatuk taarifkat bi bi maa yesidu ci la ëpp àlsrina si ñaar fukk sanatan yëpp marok moom wàccutoon delluwutoon gannaaw dégg nga lu mooy gannaaw ba taarifkat bi faatoo am ci suuf lu ëpp ñaar fukki at ci la marok na commencé wàcc bu baax a baax a baax waxuma la avancé waaye mu commencé wàcc haysu tasaayilat jamono ba nga xam ne dooleeku na at atmaawul eurobiyiina mm, xemam teefu waa Europe fil baladi ci dëkk boobu di maghrib maghrib bi quwatin ci doole ak ñooñu sonal Europe européen yi xam mm, nga rek gis Maroc rek am yaakaar ne war nañ faa mën a am dara ñu dugg fa bu baax a baax wana xaaral mu daanu bii ci moom alxayaatu dund asiyaasi bi ko jóg politique wala iqtisaadi ak économique économie ak ngeen koy wax wala am ni ak dal waaw waxee ak durul loolu ci la politique euh, euh, politique bi wàcc dem ci niveau boo xam ni suufi na lool seen doole seen alal koom-koom wàcc sécurité bu wàcc ndax européen yi ak tubaab yi daal fu ñu dugg bëgg faa yàq moom yàq fa dégg nga te doomi réew mi la ñuy jaxase ba far yàq far yàlla musal seen i xay amma min naaxiyati ilmiya kon wàllu politik jamonoom nii la meloon amma min naahiyati ilmiya waaye ci jamono xam-xam wa tarbiya wa tarbawiya ak yaraate foofu moom asrun jamono la joo xam ne afdalu moo gën na wanti xeet min ansori ci jamono alati nga xam ne taratu topp na ko jamono moom moo ëpp xam-xam jamono yi topp gannaawam jamonoom it moo ëpp ak yar bu rafet ci jamono yi ñëw gannaawam allati jamono yi nga xam ne ñëw na gannaawam am man matal ne fiyaa ci moom asibatu ñàkk sécurité wal fawda ak caaxaan wama ila zalik ak yu mel noonu jamono ñëw gannaaw moom dégg nga nit ñi dañoo nekkoon di def lu leen neex di caaxaan ak yu mel noonu wen kaan di nekk na lil mu allif ñeen taalifkat bi kalaamun wax fi ada shaani ci bile mbir maanaam jamono caaxaan ak yooyu wax na ci waaye ba mu fa jugee nag ci la gën a fës xëy su xaala ba mu waxee fi kitaab yi ci téeram bu xitul mustafid baarama sàq gannaaw dajale kalaamun wax fi mawdu ci thème bi dina alamati oustaz ñeel borom kom ko ñoo oustaz suhra wardi denga nga asuhra wardi dafa andi saaq mu indi rek dafa andi wax yi borom xam-xam bobu di az-zuhra az-zuhra wardi ndokumay wode dafa indi waxi borom xam-xam bobu di zuhra wardi ba pare teg si waxam xaala wax na moom Zuhra Wardi ne wa xaala woon al Junayd imaam Junayd dana de yàlla gëm laa laanu ci moom mooy sangu kuréel gii di suufiyanke yi yellante ko nit ñi xam suufiyanke yi wala yàlla yaa ngoo ne almunaa suñ xam-xam haala bi tuuye lem nañ lay taayam mun su dippi nangam sanatan caat wona xam ñu ne daan léegi na te këram wax ne fi xawaa ci ci pegg xam bi rek imaam Juwayni ne gis nga xam-xam bii lem nañ ko di pi nangami at ñun ci pegg bi lañ nekk di wax maanaam waxatuñ ci kenn waxatu ci ba bàyyi ñëwee na daf koo lemmi moom waaw boobu bàyyi ñëwagul yi lem ko parce que borom jamono yi ñëwagul bàyyi lem lemmi na ko waaye léegi tey ñu war koo lemaat parce que yàq gi bëri na nga su ma xaatoop mu wax moom زهر وردين هذا القول وحدي من الجنيد من دوريس جنيد في وقت في وقتهم ما قرب العادي عندك جيب دينغا من وحدي من الجنيد من دوريس جنيد في وقت في وقتهم ما قرب العادي عندك جيب جمعنا من علماء السلفي في برمكم كم مني دينغا wa saalixi taabihina ak ñu baax ñi nga xam ne ñoo topp taabiin yi mu ne jamono jooju nga xam ne mooy jamono imaamu Junayd mu ngi jege borom xam-xam yu mag yi ak ñu baax ñi ci taabiin yi teewut ci la imaam dina di wax ne xam-xam bi lem ko bu yàgg ca pegg bare la ñuy wax mooy xam-xamu sufyaan waaye ma ne boobu bàyyi ñëwagul moo tax ñu lem ko bu ko defee soxla war di ne fa kayfa lanaa naka la ñu ñeelee zaalika loolu maa bon di aadi ànd ak sorik jamono wa qillatu ulamaay ak néew ak borom xam-xam a zahidi la ñu dëddu ñuy wala aarifiin ak ñi xam yàlla bi xaqaayiq ak ñi xam bi xaqaayiq diine ci dëgg-dëgg diine Zora war di bu dee imaamu Junayd ci jamonoom nañ lem xam-xam bi ñun mënuñ see wax waaw luy xekk ma taw ñu lem ko nag mooy boromu ñëwagul rek waxtu woo ñëwagul moo tax ñoom ci pegg bi lañ wax baax nag moom ñëwee moom lépp maarifati boobu wax nañ ko moom jaar na ci yàlla ba ci lëm mu jaamal bàyyiwul dara waaye gars yi ci pegg bi lañ daan wax affaire lu li fatu lu jeex si yàlla ak yu noonu yooyu rek ci lañ juñ ñëw moo tax bàyyam ñuy xool na waxi góor yàlla yëpp gisuñ leen ñuy wax lu mooy ci ndëggu mu njëkk ba ndax dañ ko lemoon daaw wax ci yonente bi daaw ñu wax ci sëriñ bi yooyu mere yàlla waaw waaye ñëwee nag jërë ji wax dañ koo lemoon kon moo tax kuy xool maarifati ci wax ñu njëkk ñi doo fa gis dara ndax imaam juré dina lam nañ ko bu yàgg ñooñu si pegg ba lañ doon wax waaye maarifa moom foo nga dem ci bàyyi rek yàlla xamal la ko waaw moo tax moo tax jamono ji sant yàlla de ku dund ak bàyyi sant yàlla de waaye yellanti koon yàqkat yi bañ a yàq lu rafet loolu waa qul danaa wax ne yaani dana jublu almuallifu taarifkat bi hada waa qul danaa wax yaani dana sama almuallifu taarifkat bi taarifkat bi moo wax nag gannaaw bu mu andee waxi soxra soxra war di commenté bu mu commenté ci wax Junayd yi def ne xaaral lii mel ne ustaas yi mu ngi jugee ci ustaas bi ak Suhrawardi fi zamaani si jamonoom asaarihi ju baax al mustadaaw gañ leeral fii ci moom bi xuray am saarihi ci leeri ñu mel ni moom al qaadati ñuy njiit al ayaan ñuy sang jamonoom am na ñu mel ni moom ñu bari ñu fa nekk nga xam ne njiit lañu sangale ñu ne mënuñoo wax ci xam-xam bi ndax borom xam-xam bi ñëwagul. من فأنا لنا نقل من يالي ذلك كله ونحن من في آخر زنب الأزمان من في مجد جان جمنا من دون يوغن سوريت ما ما غلب عندك لنظر من استيلاء الغفلة غفلة في نطق ساقن واستحواذ الشيطان أو نطق وتراكم الظلم من غوايتي أكدجلو لندمي رير والخزلان أكدجا ما يبني جبلي على من ينينك جمنا جبون جوجي من أنا كم كم بيه <coughs> mbir mi nag nekkul ci jege mag ñi mujj ñëw mm-hmm. ndax alquran ñaari kuréel la tagg mooy ñu njëkk ñi ñu jamonoante ak yonent bi mu ne yàlla yónni na baata fi ummiyina rasulan minhum yónni na ci ñu ci yaarami makk ya yonent bu jugee ci ñëw moo waxat wa axarina ay baata fil axarina yónni waat na it yonent bi ci ñu mujj ñi kon yonent bi yàlla nee na maa ko yónni ci ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi lu tax mu jagleel ñu njëkk ñi ñu mujj ñi ñu mujj ñu ku xam ne yonentu mënul mënul mënul fekkee jamono jooju lu tax yàlla ne maa ci ñoom xanaa ko ci ñi nekk ci digg mujj ñi dafa am xalifa yonentu bu mag fa ñu njëkk ñi yonentu moo ñëwal boppam waaye ñu mujj moom xalifaam mooy ñëw ñu mujj ñooñu nag bañ laaj yonent bi ñan la ay araba fa nekkoon waaye salmaanu faris la jàpp salmaanu faris nit ku ñuul la mu ne leen diine ji nekkoon ci biddiw ya dana am góor gu bokk ci ñu ñuul ñi dana ko jëri moom beneen waaye mu ne ay góor yu bokk ci ñu ñuul ñi waaye góor googu ñu tudd mooy sangi góor ñooñu nga dégg gis ne xalifaam yonantu boobu nit ku ñuul la man nag ma ne bàyyi la loolu amul benn sikk sax waaw te bàyyi seedeel na ko boppam parce que Cheikh Tidiane wax ne wa axaree ne ñi alquran di tagg noonu ñu mujj ñooñu alquran di tagg Cheikh Tidiane nee na mooy samay saxbu samay saaba borom muniyatu murid andi na ko danañ yegg si foofu mu ne taaifatun min saxbi am na kuréel si saxaabaay Cheikh Tidiane buñ dajale woon xutbu yëpp kuréel googu ñu jël ci kenn ci karawam kenn lañ jël ci karawam dara peese ko xutbu yi mu ëpp leen doole ci yàlla waaw boo jëloon kenn ci waa kurél googu jël karawam. peese ko xutbu yi teg karaw gi ci balaas xutbu yi ci balaas karaw googu moo gën a yàlla xutbu yëpp daf ne kuréel la si sax bu Cheikh Tidiane sax bu yi nga xam ne mooy waa xëy na bàyyi nag ci jawaay rasaay ba muy xootee jëmee ci yàlla di woo kenn ci xaritam yi daf na ko boo bëggee bokk ci kuréel googu borom mu yetu murid di tudd ñëwal ci faydu bi boo bëggul nag toogal waaye bul fexe kon ndek ñooñ faydu bi bàyyi nangu ne la ñooy kuréel googu waaw moo tax loolu may ak yàlla nekk taaliba bàyyi may ak yàlla de xut bu zamaan mag yi nga doon dégg sax yaa sut noonu la demee nag moo tax dégg nga boo gisee ñii bañoon wax ci xam-xam bi parce que du seen xam-xam borom xam-xam bi ñëwagut moo tax ñu lem ko di xaar borom <coughs> ba borom ñëwee tasaare na ko ci àddina yëpp ba mu nekk kóos yi ci la wax te xam nga ne boobu mbir mi métti de. amuñu woon luñ lekk ba ñëwee Medina Bees amuñu woon luñ lekk na Imaam Asan dégg naa ko mu nettali ne bañ ñëwee Medina Bees dégg nga ay new lañ loon rënk dugal ko ci suuf di ko lekk ndax lan ndax dund dafa jafe new new mën naa am ñu bëri xamatuñ ko sax te boo ko xamee buñ la ko joxee bëggoo ko ndax neexul ñu jël bu ñorul bi suul ko si suuf pour mu xaw a ñor ñi di ko lekk Imaam neen loolu lañ daan dundee nee na bu daan yàlla di ci taw maaw si jànq radiyallaahu anhaa daf daan wax bàyyi na leen génn leen ci néeg bi ngeen nekk balaa daa balaa néeg bi di daanu seen kaw néeg bi mel noonu lañ dëkkoon ku amul mooy ne amul woon dara bu taxawee nag koosi hmm? nga xam ne moo bu taxawee koosi nga xam ne moo gën a métti commencement métti na ne faydu bi fu tariixa ba yegg dana fa yegg dégg nga dana daj suuf si yëpp kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal ci jamono boo xam ne bëri na noonu lool ah xam nga ne kooku am na ndigal xam na xam na fu mu jëm waaw te loolu mu ngi ko ci laay alquran alquran daf ne huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini lxaq li yuzhirahu ala diini kullihi yàlla ne moo yónni yonent bi jox ko huda mooy shariatu bi wa diine xaqi mu ko diine dëgg kooku mooy xaqiqatu bi gars yi mënuñ koo firi nag yàlla na pour mu not diine lépp diine diine yi mu fekkee dana ko folli sharia bi ñëw na folli na ñëpp diinu xaq bi moo des bàyyi te bàyyi mooy xaq bi moom ci moom la ko yàlla di feeñale moo tax mu ne diine ji dana laj lépp ndax loolu alquran wax na ko bu yàgg yàlla ñaar la jox yonentu sharia ak xaqiqa huda mooy sharia diinul xaqi mooy xaqiqa yàlla ne ñaar yooyu danañ fees danañ daj àddina bi yëpp sharia daj na àddina not na ñëpp diinul xaq kay bu ñëwee foo mu not ñëpp moo tax bàyyi xam na ne mooy borom mu ne leen tarixa bi dana yegg fépp yàlla boole ci ay taalibam hmm. allahuma yow buur yàlla العافية تجامك الكامل قمر الدائم أبو بشخ الشامل دك بفضلك السنجنين وكرمك ستراغا يا رحمة رحمة يومي أبو يرمان دي مولم يرمي يا رب العالمين يوبرم من دفي موي روايتنا صلو غين صلو لكتاب بوحية المستفيد نيال تير بوحية المستفيد دافاي نتلي كي دافا بي ممكن فيم تير بي نروي دنا نتلي كتاب بوحية المستفيد تير بي بوحية المستفيد برواية المتصلة نتلي بو جوك يقول لك ان من يعلم الله سيد رمضان خمبا شريف سيد محمد فتح عند غير فتح منك دين الحجوجي كوكو جري كان والدي شو أجرم الحافظ كموكل الحجة كي لا يعلم الله من كبر من خمبا سيد محمد الحجوجي كلو كجري الحسني كوكو جري كان يعلم الله سيد رمضان على ديب أبو أمير سيد محمد بن دين حسني الرباطي تكون رباط من المؤلف مجرد كسالب كبير القطب قطب الشهير بسيو Seydi Mouhamadul Arabi bun Saalih radiyallaahu taalaa anhu kon moom ñii la ko jëlee ñoom ñii lañ laan jëlee tey duñ dem rek dem jënd sa marché ba dañ naan sëriñ bi moo la ko jox kee sëriñ bee ko jox sëriñ bee moo ko jox sëriñ bee ko jox nga xam ni wóor ba ci taarifkat bi kon am na ci sanat bi jaaree ci dégg nga Mahmad Hajuji ba ci taarifkat bi am na ci beneen sanat tamit sanat mooy wéeduwaay wala naa ñeel nañu fi ci téere bi sanadul aqra beneen wéeduwaay عن طريق الفقيه تيونو برم قم قم بديق في المقدم كين جيت في تاريخ بي سيدي الحاجي الأحسن دينغا دينغا الفتوى كي آه، الدمناتي أي يعني مقدم مجرب سي برم قم الفقيه كديق في سيدي محمد بن علي السوسي أني يعني الله مدير بس برم قم قم أنا عارف بالله كخم يا سيدي أحمد سكيري جي أي يعني فقيه مجرب سي برم قم قم بديق في أنا عارف بالله سيدي محمد بن يحيى برامي برامينو ribaat yi ki ka jug ribaat fa la dëkkoon bi dawri yi mu ngi ko jëlee mu alif saari kërbal xutbi kay xutbal shahir bu si wala alamat seydi arabi bun saaye radiallahu taala anhu kon am na ci ñaari yoon yoo xam ne yëpp boo ko toppee day dem ba ci taarifkat bi eh, ci ñooñu la ko la amee bi loolu dafay wane kon mbind mu ci yore lu wér la ndax boo ko toppee day dem ba ci taarifkat bi amaa boo jëndee rek mën ngaa jënd téere boo xam ne manqué na wala yokk nañ ci wala demee noonu hmm? kon téere bi ñu yore nii moom bu wér la ndax boroom nii la ko amee hmm? sakkaru nusxati asliya melo bindu cosaan bi almutamada buñ sukkandikoo fi haadal kitaab ci maanaam am na bindu cosaan moom la sukkandikoo bindaat ko ci téere bi sotti ko bindu cosaan li nag nu meloon mu ne intamad naa sukkandiku nañ fi haadal baxsi ci bi la gëstu an nusxatayni ci ñaari bindu cosaan يقتل المؤلف في بنو تعرف كرب أعلى مقرم قم قبل قطب قطب سيدي محمد العربي قن سائر للهانو ياري بند لسكوليكو يقم نيب تعرف كرب موكو بند ربهم مومن سكوليكو وقالتي وطالي نكسي تيري بيدا فايدا بوك بند تعرف كرب الأولى بند بنيك بمسكوليكو تامة لمدلة ليس نيكو فياسي من بطر أغوانيكو ويمم تحت ملكية سيدي محمد بناني mu ngi ci ron moomeel ak sama sang Mouhamad Bandaani al amil kay jëfee xam-xam asaabiq kay jiit al amil kon kay aji liggéey asaabiq bu jiitu li madinati sawira ñeel dëkk boobu di sawira dafa daan liggéey at laanaa wan nañu alayha ci téere bi maskuura ñu ngi koy gërëm bi manzili ci këram bi madinati dégg Timaara ci dëkk boobu di moo leen wan téere boobu dégg وهي من مخطوطة بند في نفيسة بسير تصفحتها ليرنا صفحة صفحة باس بر باس ولا هميشا نكنا سفقل من ينبين سوف بعض الزيادات لنا تيوك التي يقن الحقا يغنك المؤلف ذلك بكتاقيب كم كومانت على بعض الفقرات التي لنا تي بندي التي يقن ساقا أنك في النص تكسي تاكسي من بند مومو لب dafa mat amul dégg nga Seydou Mouhamed Bannaani moo ko moomoon wan ko ko foofu ci këram mu liir ko ci suuf gi nag am na yeneen ci taarifkat bi bind ngir mottalee ko yenn ci indi ci téere bi waaleehaa ci moom ixtamat naa lañ sukkandikoo fi tas yi ci wéral euh, mbind mañ yore mu muraajaat ak nafat wa tadqiq ak sewal ko maanaam ñun suñ bind bi ñu yore suñ téere bi ñu yore foofu lañ sukkandiku xool ba xam ndax dëppoo naag bindu taarif kat bi war a déet lu ci wuutee ñu defar ko lu ci dëppoo ñu bàyyi ko noonu amma nusxatu saani bindu ñaare bi nag fay mu al-uxra beneen la maxtuusatum buñ bind bi xatil mu allif bi ci bindu taarif kat bi radiyallaahu taala yàlla yàlla ma koy mi gërëmanu ci moom xëyra annaha waaye ne moom laa tastamil du làmboo ala nafsi xawaa mi ci ci même feggal al mawjuda yañ fekk fil maxtuusatul ula ci bind bu njëkk bi bind bu njëkk bi ci suuf am na am na yi ci taarif beneen bindu ñaareel bi ma gis moom kooku gisuma ci yooyu taalifkat bi yokk ci suuf ay maxtuutatu bannaani bindam bannaani ba kooku mooy Mouhamad bannaani ba mu ko joxoon dafa am taalifkat bi daf cee yokk yeneen ci suuf amul lu ci manqué waaye bindu ñaareel bi moom gisut ci yokk yooyu ñu def ci suuf kama annaa comme ni nga xam ne bu ñaareel bi mabtuuratun luñ awaaxiri lu manqué mujj la. yéen xusaa dana ci wàññeeku maa yasiru lu ëpp ala insilina safaatan ci vingt paas lu mat ñaar fukki paas wàññeeku na ci bu fiyaa nekk na si ay ren ba tey wàññeeku fi bandi safaati ci yenn ci paas yi al juzi awal bi njëkk bi minaat téere boobu téere boobu xaaj bi njëkk bi yenn paas yi sax dafa am yenn baat yoo xam ne andiwuñ ko ak yenn jumla yoo xam ne andiwuñ ko kon bind ñaareel bi daal nekkul bi gën a rafet nekkul bi gën a sécurité bu njëkk bi ci la sukkandikoo waajir maxtutu bi asaane bu ñaareel bi wajan naa fekk nañ ko dimna asaari maktabati sukayri ji ci biir téere yi maktaba sukayri ji fa ko fekk wees ku dana tudd ana laama bana ko xam sukayri ji xanaa xilaaf yi jusit ci ngoro xaaj bu njëkk bi min ha ci téere boobu bindam ñaareel boobu ne moom taslama jël na ko hadiyatal muy hadiya min sadiqi ci xaritam Seydi Abdoulaye al Garbi sama sang Abdoulaye Garbi moo ko joxoon mm, sukayri ji loolu la sukayri ji bind كوكو عبد الله الغربي احد تلاميذه المؤلف كان لا سي طالب طالب كبير دي لا نو يال نكو يالا غرم سوكو ديفه لولو موي بيند ييغا خامني سي سوكو نيكو ني لا امي تيري بي دنگا خيو خيو يي مو خيوون سي جامونو طالب كبير اي غاتال جي ني جانغري موم دا طالب كبير غاتال وون تيري بي ñoom foofu beneen yoon ñu andi way yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci téere bii di إن أريد الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته